jot naa ci benn lettre sax amul solo am ku ma laaj ndax cheikh bu mag ba liñ la tudd ma téléphoné que ni bu ndaw dafa am ma ni ko gis nga Sëriñ Babacar li mu tagg cheikh est-ce que sañ na dund ba dee tuddewu ko doom wax leen rekk est-ce sañ na ko est sañ na ma tuddee beneen cheikh bu dul cheikh bu mag te waxu waxu waxu ko astukan mi mu jur mi ma jur waxuma ko man waxu ko alaaji abdu kan ka kooku jaadu na tur wi itam boroom waxul woon pour mu indi xuloo dëgg-dëgg loolu sañu ko war ki démb sama benn tànt bu jóge ndar fekkuma sax ci kër gi sama benn njaboot la fa fekk mu nuyoog moom ni ko su jaaree ni ko tàntaam jaaroon la te nga wax ko ni ko bañ koo ngénte man la Cerno Seydou tegoon junni ba ci sama loxo moom lañuy jëkk ngénte junni ndax cër Cerno Seydou ni sëriñam lañu ko tudde Seyid Cheikh Ahmed Tijani Chérif El Fatim waaw loolu moo tax mag ñi ñemewuñu ñu ma wax la ko سري أباس سال مومكو يوني لما من علي بارئ الخليقة يلا بمطالعة الكلمة لفتى الفتيان وعين الأعيا غرة جبهة هذا الزمان سيدنا وسمي شيخنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه من جيدنا danaa ko mu jox ko waa kër sëriñ abbas ñu photocopier ko te jox ma original waaw ah في بعض مال شيخنا وقرة أعيننا الخليفة الكبير ذي المقام الشهير والده الأبد بقية السلف وفخر الخلف سيدي أبي بكر نجل القطب الرباني والعارف الصمداني محيي الشريعة ومنقذ البرية سيدنا الحاج مالك بن سيد عثمان kii du loxo kenn loxo sëriñ Aba la moo ko bind pour wax la ne xam na ku ma góor gi tudde waaw ba ca des sax ma nga fa sëriñ Hadi Touré moo ma ko bind di soxna astu si Malick gaañu mu di ma ko jaal ak lëm ma ca dénk ndax cheikh bi ci des alaaji Ibu Saaxo mu ko bind juróom-ñetti fan la ca teg gaañ danaa leen ko jox yépp ngeen photocopier ko xam ni itam am na loo xam ni kenn du ko fooyee am na loo xam ne kenn du ko fooyee Serigne Alioune Gueye rek laa fonk Serigne Alioune Gueye moom rek laa fonk Serigne Njóoba gaañu marsiye yépp ñëw mu ne man sama prix Serigne ba Sall laa ko jox Hamziya la sëriñ Abbas ma nga cay wax ni ali muminin illa rida bi qadaa'i malikil muluki wa malikil ashyaa'i sëriñ Aliou nee xeetu tawxid ak tasawuf li ci sëriñ Abbas boole ci xasida bi mu def ci sëriñ Jóoba ne musu ko gis mukk ah yow maa la yónni si sa jënge xasida bi sunu bàyyi ba def sëriñ Moussa Ka def ko ci sëriñ Babacar Sy sëriñ Moussa benn bu sëriñ maam tu maam sëriñ Touba def ko ci sëriñ Babacar Sy ci ndigalu sunu maam bu baax ba Cheikh Anta Mbakke yaa ma ko wutali ca kër Serigne Mbakke Gaynde Fatma waaw yow mii si si ci ko fa wutali pour wax la ni mag ñi xamoon nañu nu ñuy jëfante ah xamoon nañu nu ñuy jëfante ah sunu maam jëjë Touba bañ ko ne Sidil Hadj Malick génn na àddina tahaddama ruknu diine ku ko way du moom wa saara ila jannati rabbi ya maliku kaafiya bu mel noonu xam nga kooku fekk na nekkatu fa ndax am na koo xam ni ku ko ñàkk yëg